2021. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. mbaxal bi ngay waajal nii. mbaxal bi ngay waajal nii. moom laay waajal mbaxal mi. Uh-huh. mbaxalu puuj paaj la. waaye mbaxalu pay pay laa. xale yi moytu leen pay laa laa ci bëggee baxal mu xool rek liggéey baa tey dégg nga lool dégg nga lool. yaa ngi leen jubloo baxal bu tollee kaani sax kaani kaani yaa ma toll nii Thank you. xool wala yàpp bi ñor na dèjà yàpp bi ñor na nii te xool sii foog ma yàpp bi ñor na nii dèjà man six mois la. xale la six mois ñaari xale yu mag la ñaari nagu xale la. nagu six mois. bu dee. yow comme damay sii fan benn yàpp bi tellement bu ñëpp lekk ba daj. ragaloo daal. nag bi eh, six mois la six mois six mois kon nag bi xale la Baba Dose Baba Dose Baba Dose diwlin bi diwlin Baba Dose diwlin bi baal ma diwlin ñëpp dinañ nekk suuf sotti ma sotti ma jiw su ma ñëwee may su ma paree may la ñu dugg mbokk yi sax sax sax ma mën a jéggi jéggi lii. saa ngay ñoo ngi maxal maxal mi. sotti ma sotti ma jiw leen jiw. doyul. nga ne Babou Doss loo waxati loo ci maxal ah Doss. dos la wax ci mbaxal mi Thank you. digal ma rek maa salaam moo tëj ma yokk sama gaz ak përërëri sama yàpp la waaw sama yàpp Zale Mbaye ku ne xam na ne maam yow la dénkoon li nga xam ne mooy mën a mbaxal waaye la ngeen te waxante woon teggi woo ci dara duma ci teggi dara ndax dige bor la ñàkk a jëf war la gor bu waxlu moom moom boppam waaye bu xasee ba wax moomatul boppam tax Zale war a mën a siif mbana mbaxal waa dama di doomu géwél bu ma ko siifee kenn du ne lu tax boo dee doomu géwél siif mbana mbaxal Zale Mbaye ci réew mi siif mbana mbaxal kenn du ne lu tax giir ñi sax léegi dañuy siif mbana mbaxal waaye kon bu géwél bi siifee mbana mbaxal wàcc na ma ñëw fekk la nga mel ni ko xam mbaxal lool teg say bopp xar teg say làmminu nag teg say bopp nag ah daal di jël ndawal gu nooy gi rek rusi ko rusi bu jaar woon yoon mu dog waa xam nga damaa yoroo kër géwél gu mag tubaarkàlla juddu fekk ñoom ñuy dem seeraas di ñëw ñu mën a def tubarkaal la yee lool mën a def bopp xar bopp nag tubarkaal làmmeñu nag làmmeñu xar ma siif ko jàng ko ñu koy def ci mbaxal mhm. kon ma ko tegee nii war naa mën a ne loo rosé yi lii laa la ba xoo sa cin sa rosi sama cin sama rosi nag mustaam barkaal laa ji faalu ku ne xam na ne ma damaa mën mhm. mënantuwuma xam nga ku ko mën di ko def la bokku la ku koy jéem mhm. dama koo rosi rek mu diig ma bàyyi ko noonu tubarkaal la mu box boxal gis nga nii day box boxal nii may wax ak yow <laughs> muy box boxal di gis nga mu ngi box boxal te xam nga yàpp bi dafa neex a ñor ndax xar bi ndax nag bi nu nag bi nu rey nii 6 mois la am. déedéet juróom benn weer la nag. ma dégg nga ne mbaxalu pay laa laay def as. mbaxalu pay laa laay si bu ci kanamee lii tubarkaal lancement bi dongu la film bi ñëwagul lii tubarkaal ñamale bi dongu la bi ñëwagul damay doog a taal damaa guddee. kon Zal ñu bàyyi la cin bi gos. cin bi ko tuuti. gis ñu ñaar xool loolu dèjà gis nga tubarkaal sama bopp nag. dèjà tubarkaal tas na ci biir yëf te dara xewagul te dara xewagul dèjà tas na. gis nga bàyyi ngeen añaguma xamal mbaxal mi xaaral mbaxal mi mbaxal mi de ku ko xaar xaar lu neex. mbaxal mu neex léegi léegi léegi léegi dem ñëwaat. maa dem ñëwaat. naa waa léegi léegi ñoo far waaw. xoolal lii lii di bëx bu xal. lii di bëx bu xal du ko def daa mel da ci mbana de. waaye damaa yàgg ci mbana nag damaa judd ci mbana yaru ci màgg ci ba fii ma toog nii mbana kese laa man man mii may wax ak yow rek boo ma génnee ci mbana dara desatut man rek mbana la man rek mbana la damaa mën mbana damaa mën mbana dëgg neexul mais beneen ne fee xanaa beneen mbana la ñett mbana la ñett mbana euh, tubarkaal laay toog ñett mbana xam nga daaw damaa defoon ñaari mbana tubarkaal la yëfi doyu liccoo ngi du ma bàyyi ma fen xale yi mbana bi ma ko nag ci booli ci ci li laa ko doon yàq di ko séddale xale yi di ko lekk mu jeex taat xale yi di yuuxu ren nag ma dool leen beneen beneen mbana mbaxal def naa ñett mbana. ñett mbana mbaxal. Mm-hmm. mbaxalu pay laa. ndax ñett mbana mbaxanu pay su ko defee tubarkaal maa nga teg sama tufe ne la ci côté bi. tufe bi tufe baa ngi ci côté bi est ce que mën naa ne mën naa ne. waaye xaaral tëjal lii ñu dem meññaw meññaw. musal may daal dafa mel lii mooy euh, ci nu tufe bi. non non lii ci mbaxal mi la. ba ci mbaxal mi la mbaxal mi nee naa def naa ñett bool. ñett ñett cinu mbaxal. ñett cin laay def mbaxal. tufe baa ngi ñëw. léegi nga ànd sa sa doomu nday ak sa xarit sa genn waal moom tam ñu ko ko ci mbax ci ci mbanay xarit nuyu nañ la. ñoo fay. tey yow la nga sif ci waañ bi. waañ bi daal ñu tax a sama waaji sama waaji na ma la ci gàccee ngi ci. war fa séene da jàkkaarloo sëñ Fall ba muy defal gàmmu tey. kese waaw. tey sa doomu nday asa jigéen sa xarit wóolu ci waañ bi yow ki nga xam ne rek mooy Jeanne May jox leen ay man a ngeen war a siif mën a mbaxal war a siif ay mën a tufe loolu seen digganteeg maam. waa lool moo ñu ko sas. ñoom ñoo ko defoon daaw man ma ñëw ren. ñu xajal ma ci. <laughs> ah loolu mën naa nekk nag. loolu moo tax tey Zale bàyyi la ci suba gi sama waa ji nag liggéey daa nekk ci concours nag. <laughs> daa nekkoon ci concours ba ma wax ak yaa may dégg. yee yaa riis nag sama waa na ma la ci gàccee gi borom Cees. waaw sottil xaaj bi bàyyi ma fi xaaj bi. waaw. borom Cees Ndeye Ndiaye Ndeye Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées.